jërë ngeen jëf ba tey comme niñ leen ko waxee ñoo ngi fii nag euh, ci Daaru Xuddoos euh, ci bis bii nga xamante ni Serigne Khadim Gueye kenn ku nekk xame na ko ko ci bis boo xamante ni saa su nekk bu ñëwee suba la màggalug euh, Daaru Xuddoos rek ngeen gis ne dina ci ànd ak taal bi yëpp waaye it dina ci ànd ak mboolem soppeem yoo xamante ni. yaa ngi ci biir réew mi ak lu génn réew mi macha allah ñu taxaw ak nag soxna Zeyna Bamba njaay macha allah mu doon kenn ci digganteem moom ak Serigne Khadim Gueye mën nañ ne di jàppale Serigne Khadim bu baax a baax a baax ci liggéey yu mel nii yi ñu fës ak li nga xamante nu ñu koo tudd soxna Zeyna mel ni teewati nañ ci bis bi nga xamante ni Serigne Khadim mi ngi koy amal yàlla sàkk tey jii ma macha allah ku fi teew rek sa xol day ci mobilisation bi nga xamante ni bépp soppe wala bépp am na jàmm rek tey jii ànd na ko sëñ xaadim ci a a xam ne ñu ngi ñuy bi nga ne ñu ngi ko partout à travers le monde ñu bu baax tey nag boo ñëwaatee fekkaat ñu ci amati ak kontaante bu baax a baax comme ni ñu ko defee saa su ne ndax ginnaaw bi ñu yàlla maye ñu fekke ko te tal ñu ñëwaat bis bi nga nga xam ne ni ma koy xëy saa su ne bisub jaamu yàlla la bis boo xamante ne bisub defaru la kon jàpp naa ne képp ku fi ñëw yàqu rek yaa indi sab yàqute bis bi nga nag bis xam ne nag sëñ xaadim da koy def saa su ne ñuy am mbégte di ci àndante ak moom nga xam ne bu ñu fekkoon ba extérieur sax dinañ ñëw àndante bis bi ndax kóllëre gi nga xam ne moom la ñu Serigne Touba boole ndax Serigne Touba rek tak ak xasaay di kon bis bi tey am nañ ci mbégte sëñ Modou am nañ ci kontante bu baax a baax xoli sedd na te it ñu ci amoon objectif mën nañ ni euh, alhamdulilah sant yàlla objectif bi yëpp mën nañ ni euh, atteindre nañ objectif bi xanaa kañ di ñaan képp ku fi ñëw rek aaju boo mënta di indi rek booy dem euh, fekk yàlla faj na aaju boobu te képp ki nga xam ne tamit indi nga fi tawat ñuy ñaan yàlla saafara sa tawat waaye nag sëñ xaadim ñu koy ñaanal gudd fan ak wér ak tawféex ba liggéey bi nga xam mu koy liggéeyal Serigne tubaa di ko liggéey ci xasida yi mu mën di ko yeggale ak sagoom ndax ñun saa su ne ñu ngi ci ginnaawam luñ koy wax rek mooy bu mu tiit bu mu ragal bu mu daw ndax saa ne ñu ngi ci ginnaawam te amuñu dara luñ ko jàppale ci koom-koom waaye li ñu am ci xel ak xalaat ak li nga xam ne bu ko defee mu yokk incha allah dinañ ci àndante ak moom. dëgg la da ci am solo sëñ Modou ndax euh, mel na lii nga ma laaj ni day fekk ñun ñu nekk ca mooy maanaam saa yu ñu téye micro bi caméra yi tiim ñu message bi ñuy lancé jànkatu xasaay di mooy ñu xam li ñu yor. ndax xasida sëñ Touba dafa nekk lu tedd xasida sëñ Touba yi dafa nekk loo xamante ni ñun kenn xamul lu mu doon ñun tey bu ñu nekkee di napp napp ci xasida sëñ Touba yi wala ñu ciy xam dara grâce à sëñ Xaadim Guèye man personnellement xaw ma sax xaw moon sax luy xasaayit xaw moon sax luy jàng sëñ Xaadim Guèye dana ma wax dinaa la def murid saadix te mën naa ne tey fi ma nekk nekkal fa Serigne Touba nekkal fa Serigne Saliou grâce à moom kon jikko ji nga xam ne moom yor na ko ba ñu ñu ñeme ko muy jikko nit ku dal muy jikko nit ku yiw mooy nekk jikko nit koo xamante ni ku am personnalité ci boppam xam nga personnalité dañuy wax mais du sol ci yére yu rafet du sol lii yu rafet ndax ñun yàlla dimbali nañu suñu tànk bi duñ ko yëkkati di ko teg ci lu ñàkk fayda personnalité mooy nit ku xam la nga doon xam la nga la nga li la sëriñ bi defal te saa su ne nga di ci nekk te sëñ xaadim ci loolu la nekk gis nga bis bu loolu deñee ci moom teggee ko ci ñoom ñun ñu nopp ànd ak moom ndax yàlla def na ne yor nañ yeneen soxla ay soxla yu bari lañ bàyyi Dakar ay yitte yu bari lañ bàyyi Dakar ñu bàyyi ko ñëw fii ci bis bi tey ndax jikkoom ju rafet ndax sëñ Xaadim xamul ku ko mag xamul ku mu mag xamul kuy xale bi xamul ku jigéen ka fooree man de loolu laa ko xamal des fois sax nit ñi dañ naan man yow moom sëñ Xaadim mënul la dara parce que man moom lu ko ñëpp di ragal wax dama koy wax waaye nag nit nu ñuy wax rek booy ànd ak nit da ngay dëggu ndax man su may ànd ak sëñ Xaadim Gueye ci dëgg laay ànd ak moom su ma noppee ànd ak moom ci dëgg du ma ànd teeg moom ndax du alal laay gis si moom du daraja laay gis si moom du personne li ñu naan euh, li nga xam ne moom mooy célébrité moom laay gis si moom ndax yàlla dimbali ñun fi ñu nekk façon nit bu ne ñu ngi koy gis même avant ñu fay nekk Serigne Touba dimbalee nañu loolu waaye ñaax ak message bi ñu koy jox mooy mu gën a fonk li muy def naam mu nga ca mu gën a téye li muy def naam mu nga ca waaye nag na gën a ànd ak dal gën a ànd ak pas-pas ndax yoon bi sori na de yeggagul nekkagul sax ci digg bay yegg boo demee bay yegg Serigne Touba wala sama yoon du luy yegg ndax Serigne Touba ku ne xam na ne mission bi mu amoon ne metti woon na diisoon na waaye ba tey pas-pasam ak gëm-gëmam ak lii nga xam ne mooy ak taalibe moo ko may donc bu ñu gisee jikko yooyu yëpp ci sëñ Xaadim lu ñu ko rek mooy mu gën a téye ndax dana metti dana sori te dina tàng waaye na jàpp xam ne ñun saa yu gëstoo ñu ngi ci ginnaaw waa Touba Vision dañ leen di bëgg rek comme d'habitude ñun dañ leen di suivre bañ na ko ba ci chaîne YouTube bi dañ ci abonné wu nga xam ne lépp la leen dugal dañ koy suivre ndax ñu ngi leen di bàyyi xel ndax liggéey bu rafet bi ngeen di defal Serigne Touba waaye Serigne Touba mi tax ngeen koy def am na fay te ñaan balaa déwén ba leen fi ñëw ñu gis fi ay millions de caméra waxuma la kër Xaadim ngay waaye Touba yëpp ngeen sam fi caméra ngir liggéey bu am solo Serigne Touba bi nga xam ne moom ngeen di wane kàddu yu mujj nag mooy ñu ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñëpp tawféex di baalu àq ñëpp ndax fu mbooloo di daje ak mën naam te doo ko yëg waaye lu ñuy ñaan rek mooy ñu gën a rafetal xol yi ñu gën a jàppante ndax ñun ñëpp taalibe Serigne Touba lañ kon bu yàqoo kenn moo yàq waaye Serigne Touba defar na lépp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf soxna Zeyna Bamba ci kàddu yu matala yooyu mbokk yi lii nag lenn la woon ci li nga xamante ni moom lañ leen indiloon fii ci kër Serigne Khadim Gueye ci lenn ci ay kàddu yoo xamante ni mënut a ñàkk ci bis mu mel nii kenn ku nekk xam na Serigne Khadim Gueye ci taxawaayam ak pas-pasam ci li nga xamante ne mooy xasida yi waaye pas ak jàpp nam ci li nga xamante ne mooy donga yi ku fi yëkkati kàddu rek da ngay jàpp ne Serigne Khadim yow kese la amoon kon incha allahu rabbi nii rek la ñuy wéy ak lépp loo xamante ni am na fii ci Daaru Xudoos fii ci kër Serigne Khadim Gueye ci bisam bu mag bi nga xamante ni tey ji woote na ko mboolem jànkat xasida ñëpp ñëw fi Touba Vision indi leen ko kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu